yaakaar naa ne foofu la ñu gën a xaaree société civile. mais pour l' instant Fatou Abdou ñoom gis nañu ko bëgg nañ coûte que coûte président Macky Sall joxe date euh, boo xamante ne du weesu 2 avril. waaw mais ñoom aussi nag ñu ngi ñu ngi ci seen rôle parce que aussi seen euh, am nañu constance bi moom mooy euh, génn nañu def une manifestation parce que d'accord wuñ ci report élection présidentielle mhm. pare nañu def nañu évaluation de cette manifestation teg ci euh, bind lettre xaatim jagleel ko président de la république et man loolu sax déjà dafay wane courtoisie bi nga xamante ne mi ngi tàmbalee am ci sunu classe politique mais également ci suñu société civile que mbir mi du xëccoo mhm. mbir mi du du werante mbir mi peut-être waxtaan la na et loolu cër la peut-être bi ñu jox président pour adresser ko lettre mais également pour rappeler ko li nga xamante ne moom la ñu tënk ci constitution bu Sénégal jëm ci ne moom à du avril euh, mënul amal lu dul euh, peut-être dafay illégal mais également dafay illégitime mais lépp lu ci mënti am aussi waxtaan mën na doon loo xam ne da koy indi parce que bu ñu demee ba bind ko lettre je pense que loolu benn buntu la boo xamante ne président de la République également a dalal la société civile muy ne ñu ngi ci aar suñu

ne ko ñi ki tey ginnaaw démb bi Rose Wardini xam leen ni moom kon euh, bàyyi na candidature am euh, naka noone euh, retrait boobu bu ñu sukkandikoo ci article 34 bu constitution bi amul benn njeexital boo xamante ne daf koy am ci processus électoral bi Ndeye Fatou conseil constitutionnel amuñu date waaye génne nañu liste. waaw ba tey rek moom daa mel ni euh, ñoom euh, proclamation résultat bi ba léegi fa la ñu taxawee. parce que ba ñu génnee liste definitive bi am na coono wala sax coow lu ci lu ci juddu. Mhm. coow loolu bi mu ci juddoo ki mu concerne moom moo jël volontairement décision wu retiré wu ci euh, processus bi. Mhm. tey ji nag bu ñu xëyee conseil constitutionnel publier waat liste définitive bi nga xam ne moom la woon indi mais wàññi ki nga xam ne moo ci jóg ma doon xaar mu toftal ci date parce que tamit ñi war a examen. boo leen ne yéen ñii la groupe bi la xanaa di leen tënkal ban jour la ñuy dem mm-hmm. mais révision yi ñu ngi bëgg a yàgg mm-hmm. saa saa yeewoo ñoo ngi réviser ñu toll ñu ngi sëgg ci kaye yi di xaar jour évaluation mhm. jour boobu nag nañ ci conseil gën a jàppale mhm. mais liste boo xamante ne ñi ñoo war a jongante jongante jongante te xamuñu ban jour la ñuy jongante faaw it ñu seet nan la ñuy mën a euh, tollalee institution yi ku nekk cëram mu daal di ci taxawee mais aussi benn pression ba a jóge ci kenn parce que tey dafa mel ni conseil dafay teg pression mhm. teg pression mooy barki démb àdduna ne président décret bi nga jëloon pour abroger annulé naa ko assemblée li nga voté woon annulé naa ko fexe ba meilleur délai meilleur délai nag jur fi dictionnaire bi lu ne ku nekk interprétation indi nga ko ci meilleur délai ba tey sax ministre de la justice bi ñu ko laajee ci meilleur délai mu ne moom interprétation bi mu ci am du ko wax mhm. ñii ñeme nañoo wax ñii ñeme ñemewuñu wax meilleur délai fi ne nii Sénégal yëpp dañu si suspendre si meilleur délai te loolu noonu yëpp conseil constitutionnel ko yóbbee mhm. léegi nag indiwaat na liste définitive ah, mhm. moom it mën ñoo tekki parce que dañoo tënku ci meilleur délai te ba léegi xamuñu meilleur délai ci ban date yóbbee mhm. Fatou waaw conseil constitutionnel xam nga ñoom ci seen yoon lañ nekk de cest <laughs> ba commencé li day faat di wax ne dañoo tënk parce que ñoom bi ñu commencé ñëw ñu yóbbu leen li nga xam ne mooy cette loi constitutionnelle ñu neenal ko même ba ñu validé boobu ba tey ci seen yoon la ñu nekk dafa mel ne dafa am benn trajectoire boo xam ne moom la conseil constitutionnel topp te moom lay topp ba mu sës. Mhm. et loolu aussi li ma naan c'est-à-dire que nit mënut a àtte boppam. conseil constitutionnel mënul dédire li nga xamante ne moom la jël comme décision ça aussi il fallait s'y attendre d'où l'importance des réformes yi ñu doon wax l'autre jour je pense Khady par rapport ak conseil constitutionnel mais loolu ñu ngi ci seen trajectoire. Rose Wardini retiré wu na conseil constitutionnel indiwaat na liste 19 génnee ci Rose Wardini. moom boobu ba tey fa mu nekkoon daanaka jógu fa. la mu wax le président nag par rapport ak les meilleurs délais ni ko Ndeye Fatou waxee y' a plusieurs interprétations yu ci am. mais dafa am lu tënk également constitution bu Sénégal jëm ci ne le président la Macky dafay jeexal ci li nga xamante ne moom mooy ñaari fan ci weeru avril. moom lay jeexal ci bopp réewu Sénégal et li ñuy wax 45 jours francs yi war nañu ci mën a tënk li nga xamante ne moom mooy élection meilleur délai bi peut-être ku ci nekk ak sa compréhension ma jàppee ko man sama compréhension que ne meilleur délai bi moom mooy amal élection avant le 2 avril. Mhm. maintenant su ñu dépassé 2 avril. def premier tour bu fekkee dañoo am deuxième tour te ñu dépassé le avril bu boobaa du tere article bi nga xamante ne dégg naa Doudou Ndoye doon ko wax démb. Mhm. mu mën a ñëw foofu parce que le président mënul dem. ci noonu le 2 avril alors que ñu ngi ci période élection. Mhm. élection après le 2 avril nga xam ne ci la ñu koy door peut-être pour rejoindre maître Abdoulaye Tine également avocat dootul nekk la vacance du pouvoir mais c'est le vide du pouvoir léegi nag yooyu noonu yëpp nag constitution moo ko tënk mhm. et ñoom ci constitution la ñuy dox foofu la ñu mën a teg am na beneen wàll boo xam ne nag les acteurs politiques ñoom ñoo ko moom et que bu ñu koy wax c'est pas parce que constitution moo ko tënk mais dañuy wax ne ñu bind ci kayit yi xaatim ko ay ñoo ko def ay mhm. jinne defuñu ko mhm. du alxuraan du bible constitution la ay texte la ay loi yoo xam ne su fekkee ne ñoom ñi bokk nga xamante ne même le protocole de la CEDEAO mënuñu ko indi fii parce que mhm. cas bi du benn mhm. ndax boobu dañ ne à six mois de la présidentielle quand il a consensus mhm. ñëpp d'accord ci mën nañu fexee ba changer li nga xamante ne moom mooy mbir yi mais même su fekkee ne loolu nekkuñu ci contexte bi changé lii am coow que les acteurs aujourd'hui bokk ci muy Karim Wade bi nga xamante ne moom ci boppam bëgg na nekk candidat loolu moo tax mu ne élection présidentielle du am sans candidat sans moom mhm. et sénégalais yi bëggoon nañu gis Karim Wade nekk candidat élection présidentielle Ousmane Sonko nekk candidat élection présidentielle je disais Bougane Gueye Dany Aminata Touré entre autres suñu mënee fexe ba ñoom ñu am ci consensus bu yaatu entre les acteurs mhm. loolu je pense que du luy déranger sénégalais yi après ñu koy jox ñi nga xamante ne moom mooy les candidats seen fichier électoral. Mhm. ci loolu la topp et lay continuer jusqu'à présent. mu ngoog euh, Fatou Abdou ñu euh, ginnaaw dogal bi tukkee kon ci conseil constitutionnel euh, njiitu réew bi moom la nit yi di déglu boobu ba tey loolee tax nag mu tàmbali day woo ñenn ñi di sekk ak ñoom waxtaan ci place su dialogue bi nga xamante ni moom la woote woon ci génnam bu mujj li mu bëgg mooy ab déggoo ci bës bi ñu war a amal élection yi lu nar metti nag ndax way politique yi seen i ay intérêt bokkul ñu ondu ci ak commentaire bu Alassane Balde ñu daal koy tàncee boor bu ne jaare ko ci ay acteur politique président Macky Sall daal di dumuy dialogue bi gën a li nga xamante ni mooy concertation yi lu mu ci jublu mooy fexe rek ba gën a baral yëf yi gannaaw bi nga xam ne nag conseil constitutionnel xamal na ko ni ne faaw mu amal élection présidentielle yi ci date bu gën a gaaw Macky Sall nag bëgg ci bile doxalin nag wàññi timing bi waaye te yaatal waxtaan yi ak acteurs yi laataa muy jël ndogal jëm ci bës bi nga xamante moom la fas yéene jàpp ngir ñu amal yii les élection loolee nag nar bi nga xamante ni ni abbil na ko réew mi gannaaw coow li mu làmboo ci ndogal boobu nga xamante ni jëloon na ko ngir toxal yile élection lu weesu mu bàyyi nopp ñi nga xamante ni mooy PDS ak seen i àndandoor waaye te rëkkale yi Macky Sall it faaw mu wax ak ñi nga xam mooy 19 yi nga xamante ñoom la conseil nangu ngir ñu bokk ci yile jongante liggéey bu ni mel nag du doon lu yomb lool ndax ku ci nekk nag yaa ngi xëcc jëmale sa boor lu mooy lu kenn xaaruloon ay magistrats yi ñu jàpp ne leen daal di ger loolee nag bu amee day daal di rek faase lépp ñu tàmbaliwaat à zéro loolee nag yegguñ fa ndax du benn yoon bi nga xamante ne nag ci libéraux yi yu àddu jëmale ci fësal yooyu le preuves. bu euh, diwaanu Thiès moom ànd na ci boobu le dialogue docteur Babacar Diop di sàkku itam ci woy politique yi ñu dem wuy ji euh, wooteeb njiitu euh, réew bi njiitu parti FDC Gelwaar di xamle ni loolee képp moom moo mën a indiwaat jàmm ci réew mi ñu déglu ko. ñu mën a dem ci élection yu dal élection yu libre élection yu transparent